première dame dañ koy sant di ko gërëm bu doon téléphone li sama président Souleymane Bay di wax vivreur la boolewul dara ak wax bari na fi artiste yu fi feebar moo leen dimbali accompagner leen te koo ko waxul xamuko ñun sunu troisième saison dina ma neex ni mu la méttee ba nga koy laaj noonu la ko méttee mu yëkkati xaalis jox ñu ñu def troisième saison kon kooku mi ngi def te ñun kun ko waxul xamuko mais dafa laaj charisme ci kilifa yi nu jiite ñu incarné ko ci politiciens man politiciens yi bu ma toogal loolu laa lay wax. mosuma yow loo defal première dame ba moom waral tax war leen a woo yéen dina ma neex jox leen. xam nga état xam nga état dafay accompagner. première dame bi fa toogee. amul kan la recevoir non man la dajeel Pikine boobu mooy wanag yi muy tabax ñu baal ma duus mu doon tabax ci wax ji euh, ci la ma gis. man boobu fooguma ko fa parce que ngir oyof gi mu ma ñu toog après mu laaj ma waaye fu ngeen fu ngeen toll ko yaay sponsor la na mu ne ma li ngeen def ci réew mi amu leen sponsor man ko waaw ah, mu ñu woo ñu dem pale mu ne ñaata mooy doy ma dimbal leen ngeen accompagner parce que état dafay accompagner lu yaatu voilà xam nga dajaloo ak man jox ma ko wala mu daje keneen mais état la am na ñoo xam ñi ngi ciy contribuer am na ñoo xam ne ñi ngi ciy toog di ko xool comme ni ko nit ñi di laajee mu dugal ci loxoom mm-hmm. mais ba mu ci dugalee loxoom nag ñun waroon nanoo am jom ju doy ni bu weesoo producteur bi jéem lu koy yokk mm-hmm. mais dina ma neex ci loxoy producteurs yi la des ñun nag man wax dëgg yàlla maa ngi sant nag dina ma neex ndax moo ma génn mais toog fi di xaar dina ma neex waaw. mais woon tam gis nga si waaw dañ ko def xam nga intérêt personnel gor du ko def ni ma ko waxee woon dama ko wax ni ko nanu dimbali mais kenn ku ci nekk fayeeku na ca loo xam ne yóbbu na ko parce que dina ma ne yàlla def na ñi ci nekk ñëpp ku ci fayeeku sa kër nga jëm ku ci fayeeku sa yaram sax day daw sa kër nga jëm nit ñi dundee ko mais loolu mooy mooy alal ressource boobu tuyaaba googu loolu mooy alal ci man

est-ce que jar na ma koy wax. ah mais dañuy laajte rek parce que ñi ngi fi dimbali ñëpp aussi dafay baax ñu ne diw bu defee lu baax ñu wax ko aayul waaw góor da yokk ngóor waaw parce dafa ñu laaj ñaata mooy doy leuse ni ko boo nu joxee 5 millions ma ne ko yaay 5 doyul mu ne ma ñaata doy ma ne ko pour mu jox 10 ne mu jox nu ko ñu tas ko def ko dagg ko ay salaire pendant 6 mois def ak ñaari sponsor yi def mu accompagne ñu ba troisième saison bi jeex voilà